Thank you. Malick Thiaw ngi di kii mooy coach écurie Kaay Baax moo wax suñu grand kuraate ñuy liggéey am solo ci écurie bi di leen ñaanal gudd fan rek lii dañ koo mérité ñoom billaahi lii du sens mérite la yàlla yàlla laf cat waaw coach kuraate gi nii gis nga gis xam na lii rafet la macha ku gis lii xam na lii dafa rafet arabas ak noonu macha allah la grand ngi noonu doomu si ngi nii waaw ñu bu baax wax di ñu représenté Tëngéej fii ba Dakar fii ba Sénégal wërngal képp di fa représenté Tëngéej waaw baax la amiin Tëngéej moom bu ñu ne affaire làmb macha allah a def rek moo teew wallaay dëgg baax a baax jaajëf laay bu laay bu kaay baax gi noonu laay bu kaay